bisimila mbokk yi ci ëttu yéenekaay yi li ci gën a fës bokk na ci ubbi tëb école année 2020 2021 bii ñu tàmbali ni ki tey waral yéenekaay bii di Sud Quotidien naan lu tollook ñeenti million ci ay ndongo ak lu yemook juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaari fukk jàngalekat ñoo fas yéene dellu ci classe yi ginnaaw bu ñu toogee juróom-ñaari weer vacances forcées looloo tax yéenekaay bi xaatim ci xëtam bu njëkk covid 19 toujours en embuscade mooy xam ne ni ci école yi lii di distanciation physique maanaam di dandante benn mètre moom la gaa yi namb ngir xeex lii di feebar bi te boo xoolee école yi bëri dañoo am problème ban laaj bi nag mooy loolu nu muy antoo li ni mel la tax ñenn ci wuy juru ndongo yekk yenn ci ndongo yi si seen jëmu bopp sax am njàkkare jamono ji yéene kaay bi yamul foofu xamle na ni yenn ci wuy juru ndongo yi nekk ci privé yi ñoom neexlewuñu benn yoon ndaxte yenn ci borom école privée yi dañuy santage yooyee la wuy juru ndongo naan dañoo war a fay weer yi ni ñu weesu te mu toll ci ñetti weer xamal Sud Quotidien ubbi tëb école 2020 2021 moom la yéene kaay enquête xëy ba waral mu xaatim ci xëtam

ba waral yéenekaay bii di l'enquête jox kàddu Mouhamadou Moustapha Diagne di directeur de la formation bu ministère de l'éducation muy dalal xelu jàngalekat yeeg woy jàngale yi waaye itam ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di woy jur yi moom moomee Mouhamadou Moustapha Diagne moo ngi xamle ni dinañ joxe lu tollook ñetti junni table banc ngir rek yóbbu ko ci école yi mu mel ni kàddu yooyee Mouhamadou Moustapha Diagne directeur de la formation bu ministère de l'éducation yëkkati dalalul xel las le quotidien ndaxte las moom lu ko yëngal mooy njàqare bu jàngalekat yi àndal acteurs yi ak parents d'élèves ci école 2020 2021 ci jamonoy mbass bi ñu Quotidien ne leen dem leen yëri feulé ci banlieue bi xol lan mo fa xew ci jamonoy ubitep école bi ñu nekk fofu ci banlieue bi amna ci gox yu bëri yo xamantene ndox bi dafa nangu école yi mo waral bi bind ci bu la banlieue dakaroise en proie aux inondations Walfo Quotidien Nante ci Kër Massar école dong ñoo fa ubbi ci Lolo ñent fuk ak école yi fa waral walfo Quotidien ba tey dénk de sous-préfet des Niayes mi nga dinañ ci def seen kéemtalaay katan ngir école yooyu yëpp ndongay mun see delluwaat jàngi ci anam yi jaar yoon ci waxtu boobu yéenekaay bii di Le Soleil moom di tàgg ki gañ nguur bu Sénégal di xam ne ni état bu Sénégal daat nay jël lu tollook ñaari junni juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom jàngalekat loole nag ngir jàngalekat yi mot sëkk ci école yi ngir ñu mën a xeex ak fàggu li nga xamante ne moom moo di mbas bii di covid 19 waaye itam yéenekaay bi yamul foofu xamle na ni état bi fas yéene naa jël ab protocole sanitaire bu mucc ayib ngir xeex lii di covid 19 xale yi bañ cee jotandi immigration clandestine ne déedéet bu leen demagum de man samay mbir jeexagul ndaxte ba tey gone yee ngi utali mbëkk mi moo waral vox populi moom xëy ci dellusiwaat ci lim bi nga xamante ne si nii moom la police fësal ndaxte boo xoolee junnekke juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari migrant ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu leen doon yóbbu lañ jàpp ci weeru octobre bi nii ñu génn ci diggante Saint-Louis Bargny Rufisque Soumbédioune ak Mbour yéenekaay bi yamul foofu àdduna it ci société africaine de ñu gin koo xamee ci turu jamono ji mun ngeen jàpp ne am na njiit bu bees loolee nag ki ko amal di président Macky mi nga xamante ne dafa bëgg rek ñu doxal kër liggéeyukaay boobee ci anam yu jaar yoon ba waral mu teggi ndawmal tànk kii di Serigne Mboup daal di fay teg kii di madame Mbarem Ndoye yéenekaay yi bari wax nañ ci match Sénégal Guinée Bissau bu amoon ni ki démb te Sénégal daal di koy dóor ñaari bal ci dara l'observateur moom jàpp na ne Sénégal donte ne sax gagné na waaye lii di football bu baax te jaar yoon tous la ko deful laas moom les lions gagnent sans maanaam daal donte ne sax yu Sénégal daal dañoo jël ndam li ci kanamu Guinée Bissau mais lii di football bu jaar yoon ba mën a convaincre sénégalais yi defuñu ko fa dërëm laa la wax nii vox populi naan lu ci mënta am nag lions yi ñoom daal dinañoo rassuré ndaxte lu ci ëpp solo moom di victoire bi daal dinañoo wulli Guinée Bissau yéenekaay bi di vox populi daal di si cabaxalaale ñaar fukkeelu bii bi nga xamante ne Sadio Mané daal dina koy am ci sélection A bi te mu tollook léegi Jules François Bocandé muy nag jéego yu rëy mbokk yi fii la ñuy yam ak yéen lu gënoon a fës ci yéenekaay yi daa ngeen jëf